thank you mbokk yi boroom naaru góor si na kii tax gannaaw sunu borom bi seen aajo di saafarawu di faju ci diir yu gàtt kooku mooy kan mooy Seydina usmaan Ndiaye boroom naaru góor grand marabout di boroom baatin boroom xam-xam ak boroom xalwa Seydina usmaan Ndiaye yàlla may na ko mu mën a faj yenn xeetu feebar yu demee ni daaxiliya di ay jàngoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde diabète ndoxum siti ak néew kattan gi waral tuuru naaru góor dina usman Ndiaye yërmande gi mu am ci askan wi moo waral mu fekk si leen ak xam-xam bii ko sunu borom bi may ngir saafara seeni jàngoro rawatina jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci biir néegu sëy looloo waral turi naari góor naari góor garab la buy faj di yokkaale puissance maanaam kàttan moo xam fu seeni at mën di tollu nag ak bépp feebaru suukar bu nekk ci seen yaram Seydina Ousmane Ndiaye naaru góor borom xalwa borom kurus mi ngi fii ci Nord Foire à Dakar arrêt terrain de basket bi bu dee Kaolack nag mi ngi jàkkaarloog banque CBAO bi Mérina ci wetu daral bi mën ngeen a jokkoo kabineem ci numéro yii 78 582 64 54 wala 76 019 19 19. doonatul garab gu ñuy présenté fii si Sénégal ak bitim réew booy jël ay millions di ko investir ci ay machine fii ci réew mi moom garabi olof yoo xam ne da nga koy transformer di ko def ay silo ak ay comprimé ci ñun na ko yàlla jaaralee ci la njëkk amee bu amutoon fu mu egg nag yaakaar naa duñu ko jaral képp koo xam ne jox nañ la wéroo waxuma tenewoo la ñu delloo la sa xaalis garab la guy faj ba nga wér amal quatre-vingts ans wala dix ans yoo xam ne jublewoo moo xam da ngay ñàkk envie wala sexe wala wala sexe bu du wala bu ci mëntu doon ak suukar ak lu ko mën a waral day da ngay teqali ko ak moom dañ ci am partenaire boo xam ne nag miin ngeen ñeeg moom xam ngeen ko bu baax muy seen xarit Aliou Mbaye képp koo xam ne ni soxla nga ko boo ko am muntu amee ci man boo jaaree ci moom di nga ko am dañ leen bàyyee moom moo jox leen numéro bi. macha allah mi ngi noonu nee naa la naalu góor mooy dëgëral baatu góor ci biir néeg bi garab la bu baax koo xamante ni meññeef bi ci réew mi lañ ko defee amul benn effet secondaire boo ko bëggee woonu ci 77 241 52 35. wala nga ñëw ba Pikine Icotaf ci restaurant xéwal bi boo taxawee woote ci numéro boobu ma la jox macha allah di nga am sa naaru góor la moom bég te kenn du naaru góor a ngi noonu. Gonzal. Eh. Fatou ça va tu vas bien. ça merci na si jàmm bëri. Fatou. oui. mais kaay ndekki. <laughs> merci beaucoup grand Zal loolee sa jàmm c'est gentil. ah am bañ a ngi nii kon. merci merci. mais l'honneur ne se refuse pas bul fàtte ni nag maa la njëkk a jox ci suba gi. grand Zal. oui. Je ne j'ai remarqué la dernière fois que tu étais sceptique devant mon café. Hmm? tey nga xëy di dama may bañ sachant ko fekkee ma sax fi ñu ko defaree. mais Fatou mais kii ci suuf laa ko jënd bi may yëg. qu'importe Gonzalo merci beaucoup la rey sax jàmm wóolu wóolu wóolu a oui grand Zaa. kon daal amoo ci ma confiance. grand Zaa yow wóoru woo ma wóoru ma. pour yow man dama lay def dara quoi. ah loolu yaa ko wax de waxuma daal. ok en tout cas moi j'ai confiance en toi. tant mieux Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ça va bien, merci. Mais t'es arrière. Ça se voit que l'Afrique a ses réalités. moo taxit wóoluwuma la Afrique mel ni mbër waaye Aysatu yow <laughs> yow est-ce que gëm nga ay yëfu sëriñ ma ne nag gëm nga ay xarfa xuufa ay wis gàllaaj sangoo saafara yooyu oh mu mënoo sant mu a welee mais Fatou baa wax ji ngay wax ni man maa ko waral dañ ci dégg sa gis nga man damaa gëm xarfa xuufa yow xam nga bu baax na man damaa bari cat te samay mbir daa bëgg coow wax leen. ay <laughs> si wuy woo ma de tontu ma si ma la laaj dafa am lu bëgg a xam. Fatou. question bi dina piège. non même pas. bu la bu looy ragal. si je dis oui day mel ni comme si que dama si nekk et si je dis non ça semble que dama si nekk ba pare di ko daw et vraiment je veux dama bëgg notre bàyyi leen ba notre. mais Fatou ay satu du wax ji leeragul de. tonton Zale tamit gis nga bu nëbbu bi ak bu feeñ bee yam ku wet xam sa bopp te affaire yi dafa laaj saf ba mu saf de saf safal ba mu saf ba may. ah c'est ça tontu dafay leer nañ. <laughs> yow loolooy sa problème di doo nangoo lire message loolu kay lu ma ci man wax naa la ko de nee naa la jot naa ko depuis si ngoon man kay amoon dem noo may blâmer cette fois-ci dangaa yabaate quoi aha euh, waaw maa ngi lay woowaat léegi na mhm, mhm. lay woowaat mhm. Maguette Ndiaye naka yàlla. doomu Duur Njaay ak Tonta Faal. ana Mohamed ak Sondiane. yow xam nga ma di. man bu ma jàppee sa loxo lu nekk yow ma xam ko. man la Nduur gardien bi ci kër gi may gardien bu bees bi. tey sa yaay ja moo baax. ak sa baay ba nuy jooy te lëppeeguñu ma nga ca barsaq ñuy teeral mhm. waaye yow seen diggante mi ngi mel ni buur ak soo ba taay jiitul masam li nekk sa ginnaaw barke fa pees entrez euh, DG le nouveau gardien ah ok finalement ñëw na mmh. Ndour la tudd ah Ndour la Diouf la ah Diouf Diouf Ndour waaw ah, baax na léegi euh, yow nga présenté ko gars yi waaw d'accord baal ma ma gis ko rek. li tax bi ma la nuyu daa lu ma yëg sama loxo ni tool bi côté Sondiane doo ca bay. lan mooy tool bi côté Sondiane doo ca bay loolu mooy la. mooy da ngaa gaaw a sotti. त्याला मायला ये waaw baal ma Ndour man daal si je comprends bien après. métti wul xam nga lu tax bi mu la dalee léegi yeggul mi ngi toll ci ah. dëgg la lu ma ci tuuti rek dama lay delloo fukki at ak juróom nga ni piw piw piw di dem. jërëjëf jërëjëf. ah lu tax duma reetaan. yow kii yow kii wax ma sama bopp ah. Tafa waaw woo ci saltige mii. xaw ma saltige xaw ma ñànk bi jommi laa def ba xam nga ni fii dama fi toog. bàyyam mais bureau bi wóoratul taman samay mbir bëggul coow ah bu xanaa du yow yaa fa waxoon sànq rek yow say mbir dafa bëgg coow non samay saafara waaye kii ma gis nii xaw ma day dóor xaw ma lu muy wax dëgg la mënu def ak moom waaw lenn rek mooy maanaam mu dem wala man ma dem moom foog ñu dem ñu gisante directeur uti solution de pare mu mel ni ku ñu yónd ci ñun mu ñëw di def ay gisaane xaw ma xarbaan lañ koy woowee xaw ma lu ne mu wax ko ay xar baax man samay mbir bëggul xar baax moo tax mënu def ak moom dañuy dem gis directeur mu dàq ko wala ñun ñu bàyyi. waaw mais qu'est-ce qui se passe. directeur. garnier bi ñuy indil. sa saltige bi arrangé wuñu ma waral suñu jaww ji voilà. waaw mais yow fii tey la fi ñëw de. DG tey la fi ñëw waaye mu mel ku fi def fukki fan xaw ma dix ans soit on gardien ou on est mais pas de deux à la fois saltige dañ ko indi fi pour mu assurer suñu sécurité ñu introduire ko rek mu ñëw ali hub yebbi suñu sutura yëpp ci kaw table ku ne mu xaawee la sa sutura wax lu mu la xamal. te nag DG on est en entreprise. y a de ces yoo xamante ne c'est trop y a trop de laxisme dans cette si si si mais on a tantôt on est en formation ay femmes di débarqué léegi nag gardien buy seet la ñu indi. saltige agence moo ko fi indoon da ngay waat agence mu changé ñu ko mais man j'ai peur de ce saltige. directeur xamoo ma ci caaxaan mais su fekkee damay wax dëgg rek saltige na ma dérange pas. waaw day soo a ñëw nañ ko jox chance am.

léegi nag léegi nag yaa xam ban prétexte ngay trouver mais il va rester. je te fais confiance ah. Attention. D'accord, allez, tout maa ngi jégalu ah pour li xew démb. vraiment affaire daf ma jëlee woon kaw ba jotuma laa sax tontu. c'était rien oublie c'était juste des moments de faiblesse voilà. de faiblesse. eh Satou regarde-moi bien gis nga man góor la bi ngay wax ak man démb li ma yëg du ma dof parce que lu jóge ci xol. ci xol lay dellu wax ma leneen Aïssatou en fait Tapha c'est vrai moi je t'aime mais sa arrogant ak sa ñàkk simple daf ma soof mais bon la dernière fois ba nga ñëw di wax ak man t'étais sincère et t'as fait preuve de maturité c'est juste ça. Karim. Excuse-moi. Mais décroche, c'est Karine, non En fait, Tafa, c'est pas parce que dama la avouer samay sentiments rek que dama ñàkk fayda. et eh, duma daw si benn ginnaaw góor. Hmm. soit c'est elle, soit c'est moi. ok. Eh, Aïssatou. <laughs> Eh. Aïssatou, calme-toi. ok gis nga man jigéen soo bëgg a génn ak man da dal si et puis am gel bokk ak moom même bureau même lieu de travail non mosuma am gel boobu. Tapha tu sais. sama diggante ak yow nag laisse-moi réfléchir Aïssatou Aïssatou allo chérie oui naka mu mais excuse moi bi ngay woote sànq dama jàppoon quoi.